Moussa ñu ngi yëmbal ki ñu fendi mooy Pape Dia wala boog Alioune Seye Junior war a bëre samedi wala boog dimanche di moins le 29 mook Tafa Mbër Assane Ndiaye moo ko të gis nga nag ñu ngi yëmbal kii mooy Boy Remarque numéro 2 Mbër maa ngi lay bëgge waaw ah, fii la ba maa lay nuyu maa lay nuyu lu waral teewaay bi fii tey teewaay bi mooy suñu doomu ndey moo oye affaire bi 100 pour cent géej waaye la quoi waaw loolu waral nga ñëw fii waaw ñu ñëw teewal ko parce que suñu frère la suñu ne yow yàlla tere bàyyi mu bëre maa ngi affaire yi maa ngi waajal bu baax a baax maa ngi entraîné xam na combat yi ma doon wax nag mais combat yi da doon yàqu mais instant ñu ngi ci non jaru may lim tur parce que ñoom ñoom maam dañu doolu avancé quoi mais jaru may maa ngi bu baax a baax a baax baax waaw waaw di ñaan yàlla xam nga la sama doomu day Alioune Sèye Junior yàlla may ko ndam bu rëy rëy rëy la ci combat bu jëm ni quoi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggee B52 bëggee naa la sëñ Babacar ziar naa la bu ngeen ñëw waaw waaw waaw dañu ñëw tey soutenir suñu doomu nday suñu xarit Alioune Seye 2 Alioune Seye junior di ñaan yàlla yàlla may ko ndam rek incha allah ci li mu jëm waaw. am na solo. Ndiaga Sarr eh, ngi lay ci loo maa ngi nii rek. tey daa mel ni ñëpp génn pour dooleel Alioune Seye. Alioune Seye da di doomu Géejawaay di doomu yëmbal moo tax bu xewlee ñun waa Géejawaay dañoo war a génn ñun ñëpp ndax ñun Géejawaay dañoo taxaw fi mu toll nii képp ku dëkk Géejawaay di yeewoo Géejawaay ñu boole doon benn gis nga ko waa Géejawaay gis nga boo yaa ngi di ñëw 100 pour cent bi daal lañ bëgg indiwaat waaw jaajëf Babacar wax nga dëgg Pape Thiam Pape Thiam maa ngi lay bëggee maloon naa la ziar gaan sant bu wér a wér gaan waa géej waay waaw gaan tey da ngeen a ñëw pour soutenir si seen waa euh, frère waaw dañoo ñëw soutenir suñu mag suñu xarit suñu doomu nday muy dem si bis bu am solo waa di ko ñaanal yàlla defal ko ndam quoi yëmbal géej waay buun ñëpp ñu si ginnaawam gannaaw bu ñàkk i ñaan la daal ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam quoi jaajëf Babacar kontaan naa Thank you. bés Alioune Seye Junior jëm ci combat digganteem ak Tapha Mbeur loo loo gis ak looy wax. waaw dañuy sant yàlla rek di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam wax dëgg yàlla préparé na combat bi nu mu waree jox na combat bi gëddëm jox na ko cërëm waaye écurie Walo bi ànd ak ci moom mu ànd ak ay mbokkam wax dëgg yàlla li waroon ci làmb yëpp def na ko di ñaanal yàlla ñu may ñu talak fekkee ba jour ba rek yàlla defal ko ndam lu seddu guy ci barki Seydina Mohamed ndax waaj nañ sax lañ waaj di ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam ci bii nag lay confirmation bi di ñëwee incha allah te sa waay incha allah yàlla dina ko dina ko defal ndam ci kàttanu yàlla dina am ndam incha allah jërëjëf Babacar tey ñu ngi fi nga xam ne nii mooy yëmbal ah li ñu fi nag mooy Assane Ndiaye moo tëgg làmb dimanche le 29 décembre stade Iba Mar Diop Alioune Sèye junior la bu écrit waalo ak Tafa Mbër bu nekk Parcelles Assainies ah. bu Grand Médine di moins waaye parcelle la defe naa ne tey nag gaa yaa ngi nii duma lim gis ngeen micro yi rek xam ngeen 100 pour cent làmb nee naa ko wàcce Alioune Sèye ñu ngi la fekk te ci sa biir mbokk sa biir dëkk ak sa waa écrit ak say mbokk ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw Babacar maa lay maa lay fay bu baax a baax a baax gannaaw ba ma sant yàlla julli si yonante bi sant samay ñaari waajur di santaat sama sëriñ maam Malick si mu sëñ Mansour yàlla na fi yàgg te di santaat sama sëriñ sama xarit sëriñ Babacar Sy yàlla na yàlla yokk ay leeram te ñu ci barkeem waaw tey yaa ngi ma fekk fi nga xam ne fii fii laa ja lépp lu ma mën fii laa ko mënee ma nekk foofu nag samay grand frère ku ci mel ni ay Baara sama mag Amad Dia ñooñu laa fekkoon ñuy bëree fii fii laa jàngee lépp dem ikiri waalam gannaaw yàlla ak yonente bi kii moo tax Alioune moom la kii waaw ah, eh. eh, maa ngay eh, bu feesee rongoñ jooy yu bëri foo ko fekk xol ba dama jóge ci komba uh-huh. man ak mbay guy uh-huh. di tànn nit te mënu ko dégg lu ne mais moom moo ma daan jàppal te baay ak sama xarit sama doomu nday armee sama seex. armée bu benn baraak armée bu benn baraak. hivernal yëpp ñoo ko bokk di ko hivernal moom ak waa mafia bi. maa ngi gërëm ñëpp daal ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi may jàppale si si kombaa bi nii. wala ñoo gërëm gërëm bi dina dinañ bàyyi ba si kanam. waaw mais si li ñu war a wax mooy hivernal nga ba pare. am nga combat te defe naa bi ngay mujj Iba Mar Diop defet nga fa jële woon kii nga ko séqal tamit bi mu fay mujjee defet la fa jële woon arène ah. muy Tapha nga lekk avance Alioune Seye loo wax ci loolu waaw Tapha li may wax ci moom bëriwul li may wax ci moom bëriwul 17 combats laa di 17 combats laa bëree 12 victoires 5 défaites ma bëree 8 grands combats uh-huh. kon Tapha du woon sama yoon mais nag làmb moo ñu boole nekkul dama ko raw wala kii làmb léegi amatul loolu dañoo war a bëree ñu ngi bëree nekk mu nekk nag combat bu ma fonk waaw du man sax combat bi du man mais dafa am ñeneen ñoo xam dama leen koy bëreel. sa digganteeg dafa mbër la ñu bëgg nga ñëw ci ñaari mbër yu jógee ci defet moom muy xale di dem yow yaakaar naa bu ñu waxee ci carrière yaa ko jiitu si làmb. Mm-hmm. ëpp ko ay komba mm-hmm. loolu est-ce que du dis ci yow pour dimanche incha allah. Euh, Babacar damay dégg mbëri di wax lu. di may dëgg mbëri di wax ñoo Alioune Sèye Junior moo ma dëgg la maa leen mag ci bëre mais maguma leen ci ayaat maguma leen ci ayaat donc c'est dama leen dama leen njëkk a ma dama leen njëkk a siiw man ba may ñëw arène matuma 60 kilos barki sëñ Babacar Si mais dama daan samay morom ñëpp mbapat ñëpp ne ma bàyyil mbapat nga dem arène loolu moo may indi arène mais bi li ñëpp def su su ma ko defoon ba tey kon mooy loolu dama man nekkuma ay kii rek dama man dama juddu ci bëre fekk samay grand frère ñuy bëre kon dafa am bër nekkul déggul ma wax nee la lamb moo ñu boolee le le 29 décembre. te si kattanu yàlla. Alioune Sèye Junior dina ñëwaat ak yeneen i façon yu bokk te yu mu doon ñëwee. waaw. mais Alioune Sèye dañuy gis maanaam nga jóge ci defet mhm. nga yëlaat booy boo xam te ne bii mi ngi si yoon. Mhm. bien vrai que dafa jóge ci defet mhm. ndax combat bi nekkul si yow parce que am na lu lay xaar te am na fu la gars yi ci biir lamb. waaw ndax li may xaar mooy lii rek. ndam rek ñëpp dem la bàyyi li may li may li may li ak li may xaar man xam naa ko ndam rek moo a jik te ci kàttanu yàlla ci barki sama sëriñ sëriñ Babacar Sy dina am ndam incha allahu rabbi nga jëm ci xale boo xamante ne làmb da koo bàyyi xel comme ni la làmb bàyyi xel mu am benn defet est-ce que combat boobu du risque ci yow tax Tapha Mbeur nee na moo la dàq xeex te yow yaa ko mag te li nga dese ci làmb ji bëriwul da nga koy abal waaw waaw mais loolu noonu xam nga waxin la waxin dafa ànd ak déggin yaa may dégg wax naa li may nee naa la gars yi dama leen a dama leen a njëkk a bëre mais maguma leen yaa may dégg mais ci kattanu yàlla laa la wax le 29 décembre dina leer dina xool kan mooy dem abal benn defet la am ak le 29 décembre muy deuxième defetam benn question laa desee Alioune Seye ba tey ñu gis ne sa combat ak Mbaye Gouye dafa am ku ma ko yóbbande sax question bi muy xës daale bu parcelle mu ne sa combat bay guy gi Gui da nga concentré woon ci mystique de trop combat bi mu dégg sa interview nga ne gàllaaj gi da nga koy tege fële da ngay entraîné ba oos ñëw daan ki nga xam ne mooy Tapha Mbeur mu lay laaj ba xam gàllaaj gi dangaa dem ba xam ne amatul solo ci làmb ji doole ji mooy priorité bi wala. làmb ak gàllaaj ñoo ànd yow yaa ngi ci làmb ji chaque yaa ngi gis làmb ak gàllaaj ñoo ànd mais dama ne la Tapha Mbeur laa wax Tapha Mbeur laa la wax su dee ay ñaanlu mooy mooy sama diggante moom ndax dama bëre ñu ko gën a oos dama bëre ñu ko gën a oos gën ko metti dégg nga ma kon moom moom du ma moom non moom mënu ma teree def li mu bëgg a def ci kàttanu yàlla incha allah rabbi la ma daan def laay def la ma daan def laay def la ma daan def laay def dégg nga ma si amee bu baax yàlla baax na Alioune Seye Junior Galaye Talibé Bamba bu inférieur hmm. tey bu ñu xoolee li la daloon ci mbay guy gi dafa feeñ fii tey sa taxawaay alin ku ne xam na sa xët-xët ak sa njàmbaar loolu kenn dootu ko werante ndax moo la indil sa tur ci làmb ki nga tuddee sa bopp wane na boppam waaye bi nga ñëwee jàppoo ci turam topp directement mais dañoo gis carrément ci say wax tey nga xeeb dafa am trop am loo jàpp ndax boo ko yóbbaalee dina gën ci yow dimanche. waaw ndax boo xoolee sama combat ak Tafa li ma ko ñàkk loo mooy gëm sam bopp yaa may dégg man nee naa la man du ma dëkkile laa dëkk. dégg nga ma te li ñuy def dàqu ñu ma ko barki sëñ Babacar si ndog-ndog ay ndog-ndog moo ñëw rek. mais mënul ñàkk mais man samay morom espoir yi man dama man dama ci bokk. te dimanche ci kàttanu yàlla ngeen di xam ne Aliou Seye Junior dafa bokk ci espoir yi incha allahu rabi dinaa ñëw ak yeneen i façon. dinaa ñëwaat ak yeneen i façon moom fu may ñëw mhm. parce que laaj naa ko léegi sa turandoo mhm. parce que diggante ak si Guédiawaye ak parcelle moom mhm. ku ne xam ne ne cin luy bax la daa yàgg di bax moom nag gis nañu Modou Lo kera def ak moom benn vidéo di ko soutenir te gis nañ mu ñëw ci open press am yow Lac de Guiers sa tête de mu mel ni kon diggante Modou ak Lac mooy amaat dimanche boo boo nee Modou moo koy indi man ay reer daf may jàpp Modou Lo ngem xamal Modou Lo bay reetaan ngem na turandoom indi ko ma daan ko wan turandoom mot bébé Modou Lo bébé Modou men waaw léegi mu ngem Tapha Mbeur mu ñaanal Brise de Mer waaw mu fu mu dëkk laaj naa la Grand Médine ah, Tapha fu mu nekk parcelle lamb ji dafa jeex bu yàgg eh. kon yow Modou Lo maanaam fi mu ne bu ko indee dimanche itam du tere nga daan Modou Lo li mu yaakaar laa yaakaar man Serigne Babacar Sy la yaakaar man Serigne Babacar Sy laa yaakaar ci nag bërëm la am na déggoo déggoo ma la fa muy tibbee fa laay tibbee donc bu ko ñaanalee bu ko ñaanalee bu ñaanalee bu demee su demee ñu tibb jox ma waaw léegi fi ñuy jeexale mooy parce que tamit waaw fi ñuy jeexale mooy promoteur moo leen tëgg te ku ne mm-hmm. xam na ne làmb ji léegi amatul mm-hmm. sponsor promoteur yi dañuy soxla mobilisation mm-hmm. Alioune Seye Junior dimanche ban mobilisation la Assane Ndiaye ak waa Baol Production mën a xaar moom xam nga Alioune Seye Junior moom boo xoolee ba fu mu yegg si ko fi indi ñu taxaw nii fii laa defee lépp su ma nekkul suñu kër fii laay maa ngi fii ci koñ bi fii fii mooy suñu terrain fii ngeen taxoon ni fii la ñuy fubalee chaque dimanche dégg nga ma kon mobilisation buñ koy wax loolu mooy loolu yaa may dégg waa Firlaaf ñu ngi waaj waa Kartabas ñu ngi waaj waa Géejawaay ñu ngi waaj waa terrain yëmbal ñu ngi waaj di gërëm na waa yunkum danoo ñëwaat ñi nga xam ne depuis depuis ba ma bëree mbapat ñu ngi ci waa yunkum yunkum xanaa fan xanaa néew ci waa yunkum danoo ñëwaat yaa may dégg ñoom ñoom ñoo ma jàppale bu ñoom ñoom ba kenn ba ba may door la ba fi dara newul ñoo fi newoon tey danoo ñëw xam nga ba ñëw lu ñu wax yi gis seen xaalis bëri jox ma ne ma rakk mu naa bu ñu fontoo da nga am cër ci làmb ji yaa ma dégg kon kombaa bi nii waaw non du combat bu may ñàkk de. kon nga wooteel léegi te ñu tàggoo. parce waa li may li may li may tàggoo mooy. maa ngi gërëm Assane Ndiaye promoteur bi. li ñu waxante woon def na ko kon ñu mbëri ñun ñoo ci des. yaa may dégg di gërëmaat sama sama yaay tànn Sophie Fall ki ñu may courant bi nii moom moo ñu moom moo ñu yar ci koñ bi te dafa tawat maa ngi ñaan yàlla ñëpp ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na ko yàlla yëkkati ak jàmm ak ndox ndax suñu yaay ju baax la soxla nañ ko ba ci kanam ak kanam ak kanam waaw di encouragé waat sama turandoo dafu jaar seen kër a ngi nii ah, fii mooy seen kër yaa may dégg di ko encouragé waat nee naa la ba muy nekk tout tànk maa ko wutal licence waaw yaa may dégg <laughs> xale la yéen xam ngeen ni xale la bu baax ngeen encouragé waat ko rek mu ñëwaat te xam ni am na cër ci làmb jox waaw te gars yi gars yi yaakaar nañ ko waaw nag maa ngi sant nag maa ngi sant Kéba Kanté Kéba mel ni Kéba Kanté daf may jàppale doomu Seex kante ñu koy nuyu di suñu xarit Modou Mbène maa ngi koy gërëm moom it bu baax a baax a baax a baax a baax yaa ma dégg di gërëm di gërëm euh, Moussa Guissé maa ngi koy gërëm tamit bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di gërëm di gërëmaat ñëpp rek mu ñoom maama joxumpa ñëpp rek waaw di woo Omar Sow ministre Omar Sow maa ngi koy woo bu baax a baax ci combat bi nii maa ngi ko ciy woo bu baax a baax baax di ko wax bu jàpp si combat bi am na solo Talla Diop sama grand moom it bàyyi ma benn yoon maa ngi koy gërëm tamit di ko di ko sant El Hadj Dieng conseiller le maire maa ngi koy gërëm sama coach Diallo Escaf gërëm gërëm naa ko dégg nga sama coach Ron Zil jàpp nañ ci bu baax a baax dégg lu may wax nee naa la li may tàggoo daal mooy le 29 décembre. incha allah sama fan si club jigéen ñi. ñu ngi ñu fi. am na ku ci mën a fecc de. waaw mama la. waaw waaw waaw léegi nag waaw moom moom ci la bokk. <laughs> waaw maa ngi woo ñëpp daal. di sant tamit Baye Ibra. Baye Ibra ak Omar Fall ak Modou Diop Badar sama mag la kooku ñoo bokk ndey ak Baye jàpp na ci bu baax a baax Serigne Sy Ablaye Thiaw Mor Dieng ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàpp na ma ci combat bi maa leen gërëm bu baax a baax waa di woo waa Yunkung waa di woo di woo ñëpp daal même waa Tooba naa tàngee sama sunu sunu groupe nitu démb yi maa ngi woo ñëpp waa maa ngi woo ñëpp waaw waa Facile famille ñëpp maa leen di woo ci combat bi waa Mbawarga sama koñ fu ma dëkk jumaay laayeen yëmbal 1 ba 26 daal maa ngi gërëm ñëpp sama xarit booy kajoor ñaar yëpp benn la kajoor geeg bawol gi daa jaxasoo de waaw merci gaan ñoo ko bokk waaw waaw damaa ñëw rek ci Tapha Mbeur di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam tey ndam lu sedd guy waaw parce que mbir doon parce que ñu doon ñëwal dañ koy ñëwal rek ñaanal ko incha allah jaajëf champion <laughs> Babacar dañ Ronaldo. mais tey looy wax si Tapha Mbeur pour dimanche. waaw ah, Tapha moom xama rakk baax la moom laa ñëw taxawu ko tey te bu dimanche incha allah dina am ndam. waaw à part ñu ngi si ginnaawam di ko ñaanal ndam te bu soobee yàlla dina am ndam incha allah. <laughs> Bébé Bismi. adversaire Ada Fass wala du noonu. waaw moom la waaw noonu la noonu la noonu. dina neex de xanaa. waaw romb la neex romb la neex romb la neex. waaw romb la neex baabu kan loolu. Tapha Mbeur mooy ubbi dimanche. waaw Tapha loolu assuré na ñaari assuré na incha allah si kàttanu borom assuré na yàgg na ragaluñu loolu. Ah, papa ngi nii ci loo ne. maa ngi sant. mais namm maa ngi nii. naka réew mi. waaw réew maa ngi rek alhamdulilah. mu mel ni kon tey parcelle génnaat na nekk ci ginnaaw benn xale bu ñuy wax Tapha Mbeur pour dimanche. waaw Tapha Mbeur doomu parcelle la. mooy bu yarul aussi moo tax bu xewlee rek bu ñu yàlla may jot di ñëw assister ko wax dëgg yàlla. loolu ma waral teewaay bi. suñu rakk la bu xewlee di nekk booy bu yaru. booy bu ambitieux te ñu am yaakaar lool ci moom bu xawlee te yàlla may jot ñu ñëw assisté ko. mais mënu ma fee ñëw nag ba dem bu ma la gisee faaw ma waxtaan ak ci ma ma laal la tuuti ci sa ci sa parce que temps yi tamit problème dafa am ci diggante Papa Sow ak Fass. non comment amul ma ciy wax. doo ci wax dara amul lu ma ciy wax. ñun ñëpp xamante nañ amul ñun ciy wax ñun ñëpp xamante nañ li xew ñun ñëpp xam na ko ñun suñ ñu ko seek ñun xam ñun ñu ko seek xaman kon di ngeen ko réglé non comment non man soxla ma réglé soxla ma réglé ndax tooñu ma te xam nañ dañ maa tooñ du ma ñaan njëkk kenn ñaanoo njëkk maa lay fay sëñ Babacar ci loone maa ngi nii rek alhamdulilah am ngeen bés de dimanche am nañ bés kay waaw day gaaw wala. Ah, a sa dépend rek ci adversaire beeg Tapha moom xale la xam nga nekk xale bu am yar respecté ñëpp isam la di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci làmb ji mu jëm ni incha allah waaw mën nañu ci yaakaar bu baax. rawaan loo wax waaye sant yàlla rek di julli seen TV di sant Serigne Touba ak Thierno Borom Daaru Noreyni di ñaanal Parcelles yëpp jàmm ak salaam di wax dimanche dañoo am bis Tapha Mbeur ak Alioune Junior ñu ngi si woo doom Parcelles yëpp ñu génn dooleel Tapha Mbeur yàlla may ko ndam ci dafa mbër ko nga xam ne instant yi dafa bëgg bis bi luñ koy def mu di ko ñaanal rek doole ko suñu borom may ko ndam ci kaw Aliou Seye si yoon ñu seet leneen waaw ñu ngay ziar. maa leen delloo ziar baax a baax a baax. ñu fekk la parcelle tey mbooloo mi génn say magu mbër ñëpp ñëw mu mel ni yaa ngi jëmati ci bés boo xam ne dimanche ak Alioune Seye Junior la dafa actuellement fan nga toll ci mbër boo xam ne daaw da nga jóge ci defe waa damay sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di gërëm samay ñaari waajur bu baax di gërëm sama waa koñ bi ngeen ma fekkee waa parcelle intervin bi yëpp di gërëm parcelle 1 ba 26 waa intawit waa alkayda bàyyi ma kenn parcelle 1 ba xam nga Nord Foire lépp lu sekk parcelle maa di nuyu bu baax di leen gërëm di rafetlu seen teewaay ak seen taxawaay bu baax a baax a baax. Ah, maa bëri naw si bëri naw ma ci xeex xëy na loolu dañoo jàkkaarloo gul góor balaa nga xaay ko. yàlla baax na. dafa maa bu baax a baax. ñu lay màggal. Alioune moom mu ne yéen waa parcelle xam ngeen kan mooy Alioune Seye junior bébé Modou Lo jaar na fi Brise de Mer jaar na fi. nee na nekk sa keneen keneen nekk sa moo si yem nee ba yow boo taxawee dëggal sa bopp dina xam ne yow yow taxaw koo jóg. waaw li ma siy wax du bëri moom Modou du moromam Modou Lo bi muy wax moo indi diw ak moo indi diw du moog moom man ak moom la moog Tapha la su paree ci Tapha dina tal leneen lu dul ay Modou indi na diw ak diw ak diw yàlla baax nañu yàlla may tal ak fekkee wér ak wér la incha allah ba bés ba. nee na waaye lu man am mooy am ndaw mais am daal moom nguus gars yi rek mais yàlla baax na ba bis ba man len laa koy xamal damaa sangu rek mais nelaw ma maanaam di jéem a wax combat bi day gaaw di gaaw moom li muy pare sax xam naa ko li muy prévoir koñam sax maako ko fëpp nit pour mu leer bum ñu jéem a gëlëmal na bis ba rek yàlla baax na duma ma ci wax stratégie boobu bosam la sama bosam ma koy nëbb combat bi loolu wax jii nga wax waxoon nga ko na ko fi nga dëkk ba seen biir kër tey nga waxaat gis nga xam nga combat lan la la a may soo ko amee ndam ak lan la la xañ soo ko bu baax a baax moo tax ma fonk ko maanaam ku ma ci wax loolu dafa nekk dëgg man booy banlieue la si banlieue laa juddoo ba tool nii ma toll aw ma benn sens interdit dëkkuwaayu kenn fu ne heure bu ma neex laa foy dugg su ma nekkoon sa koñ maa fa ëpp dama am fu ma ko teg mais damay sant yàlla di ñaan yàlla suñu borom yàlla ma yàlla may ndam lu sedd guy. man li ma lay laaj Tapha Mbeur dañu gis keroog dimanche bële wala mercredi comme tey Tapha Gueye 2 Abou Niasse jël ko muy xale ak mag mu mel ni Abou Niasse am na ndam mais ndam la na mu ko amee neexu ko am ñu xam ne ñoo xam ne sax nee nañ moom est-ce que xale yi waruñoo bëri seen biir parce que am na ñoo xam ne dañuy wax naan Tapha Mbeur dafa bëgg lu yomb ak nangam est-ce que sóor yaa ngi sóor li dal Abou Niasse mercredi passé yaa ngi pour yow. man daa am na moo ne ko war a jël dem sama yoon nekk ma fi di yiir yaara làmb la nag Aliou Seye Junior wax na ko si biir waxam moom du mag Aliou Seye Junior bu nekkee mag kon ñun ñëpp nañ bàyyi bëre maanaam man mag mag ma yomb na moom moo mag sama magu papa sax kon man mag ma yomb na man mag ma yomb na xëy na damaa teel a bëre bëreeg Tapha Mbeur force xale ngay bëreel pour Tapha Mbeur bëreeg ma kum tollal as dina jafe torop parce que boo wanee say preuve làmb noonu la Balla lu ñu wax na bëreeg Boy Niang est-ce que foofu mag ak xale dafa am ñoom ñëpp ay jeunes lañ mais magante day am si làmb yàlla nañu yàlla may talak fekkee mais stratégie bi Tapha Gueye de andi woon kera bu la ko bu Alioune def loolu da ngay jàpp da nga koy tabi jàpp ko wala après daal li may pare du ma ko mais moom nee na góor la garmi la doomu banlieue la maanaam sañul def li Tapha Gueye de def du ma ko wax dara ay boo defee lii lii laay def bu taxawee dëggal boppam ñu bëre su dawee du ma si xam dara duma si wax lu bëri parce que làmb duma dem ne ko lii laay def mais en li may pare pare naa ko. non lamb ji man du risque si man parce que man dama tarbiyu lamb dama jaar si lu ne lamb ji day gaaw am day yéex ça dépasse Alioune Sèye Junior du ma ne ko day gaaw du ma ne ko day yéex mais na ko leer ni pare naa lépp. côté mobilisation. Mame Balla keroog ba ngay bëri Balla am nga xéewal boo def ba nga daanu. mais loolu ak si loolu mooy leçon bi loolu tuddee moo ko sax erreur mais leçon laa ko tuddee te jàpp naa ne bu incha allah bu bisbaa baa dañu xam ne leçon su la. mobilisation bi foo ciy toll parce que nee na moom dimanche bés ba moom moo la koy yóbbul foo ciy toll. non mobilisation moom ñoo ci mën foofu ñun parcelle ñoo ci mën foofu su bis bu teelul ñëw du dugg pare nañ ci côté yëpp. léegi looy tàggoo. li may tàggoo mooy di woowaat samay supporters ndax làmb ji ñoom laa koy bëreel samay supporters ak waa parcelle. ñoom pare nañ ci côté yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi woo waa Caaroy waa Malika waa Kër Massar waa parcelle bii ma dëkk Cambérène Grand Médine fépp fu kuy bëggee Tapha Mbeur nekk waa Seras waa Mbaaru Sëñ Fallou bi maa ngi woo Mbaaru Sëñ Fallou bi yëpp ñoom Calaaw ñoom xam nga Beto Nees Aada Ganna ma kenn Seras képp ku fa nekk maa lay woo si combat bi maa ngi woowa waa yëpp 1 ba 26 di wax ni nag bés bi sama bës la. waaw maa ngi woo Mara bu bëgg faalu maa ngi koy woo bu baax maa ngi woo André Senghor maa ngi woo Ahmed Poro maa ngi woo képp ku may jàppale professionnel yi nekk parcelle ñoom euh, Daoudo Mbow Cheikhou Kouyaté euh, Habib Habib mi ngi maa ngi koy woo maa ngi woo Pape Ndiaye maa ngi woo képp kuy professionnel nekk parcelle combat bi sunu combat te buñ paree si moom dina xam ni dañoo soxla ba dimanche bu soobee yàlla